ba ci ki gën a ci réew mi ba ci ku gën a xeebu ci réew mi ñëpp seen responsabilité jot na ndax dañu tollu jamono ji nga xamante ne wax dafa yomb te ñi war a wax suñu waxul ñu warul wax këf kàddu gi war a wax suñu waxul ñu warul wax foqati kàddu gi te nag yar suñu bopp ngir soppi jikko yi yar suñuy doom pour ñu mën a taxaw suñu place ëllëg jot na li ñu koy won mooy ne bateau Joola këpp na fi de deux mille sénégalais et sénégalaises ci lu ñàkk solo ci li muñoon a moytu faatu ci saa si émotion bu rëy tàbbi ci kaw réew mi ba nit ñi commencé nag ni léegi de jàng nañu ci batalo Joola nañ di rang nañ discipliné nañ def nii wante sénégalais ak mëninam yoon ak ndox ak yoonam yàggul dara ñu delluwaat ci suñu mënin tey foo toll ci réew mi foo toll yaa nga fa. njëmbat yaa nga fa accident yi bëri nañu ba ci accident domestique yi le personnel de Fann ñu ngi sonné alerte pour diir que les accidents au niveau des ménages yiy dal xale yi àgg nañ ci niveau ba nga xamante ne musul am ay xale yuy lakk seen jëmm yàqu ay xale yu ñuy sàggane ba ñu daanu damm am handicap ba nga xamante ne warul nekk